no, no, no. journal du jour de ce mercredi 1er novembre 2023 dama bëgg ñu seetaan ni benn vidéo bi nga xamante ni di Sénat ordonné pour que ñu jox Ousmane Sonko fiche de parrainage lan mooy réponse su DGE DGE fan la ko teg kii au minimum indi na ci explication yoo xamante ni dina leer ci bopp bépp sénégalais. salaamaaleykum gars yi bitim réew lu len waxone tay sank ci vidéo bi ma defone nee len DGE mënta jox Ousmane Sonko fichier parrainage xam nga lutax parce que Ousmane Sonko nekul ci fichier électoral bi xam nga loolu dafa leer bra ñi ngi manipuler nan Sénat Sénat amul ben directive bu muy jox DGE Sénat mënta wo wa DGE naan li ngeen di def DGE bu amé ben directive buñ koy jox ministère de l'intérieur la ndax DG démembrement ministère de l'intérieur la lolo waral fa un commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnel, muy la avons nga xamanteni ku ne xamna à ak xarañteem ak liggéey bi muy liggéey ci ministère de l'intérieur Il DG e def 20 20 ans de carrière hein organiser ay élections ci aduna bi organiser ko ci pays pays francophone yi ngay gis ci DGE Thiendella mooy président DGE yi nekk ci pays francophone yi kooku kenn mënu ko jàngal lan mooy liggéey ak lan mooy DGE Ousmane Sonko mënta am fichier parrainage loolu dafa leer ñëpp xam nañ ko kon nag muñ leen te toog te xam ni loolu mënta nekk mooy li leen DGE tontu nii mooy arrêté bii DGE def leer na nañ waxoon naa ko te waxoon naa leen ni leen li ma leen wax ni dara gënu koo leer li gëna a leer mooy Ousmane Sonko ci fichier biñ ko dindi bu ko fa waar daaf dugalaatee DGE jox ko parrainage Ousmane Sonko mënta am fils parrainage parce que nekku ci fichier électoral bi wasalaam. kon yaakaar naa ni ñoo do vidéo bi dégg la nañu li nga xamanteni ki di DGE jël na décision dafa nek ci droit am nek ci yoonam Sénat amul sañ-sañ pour jox DGE manam direction générale des élections ordre direction. général des élections benn démembrement la ci ministère de l' intérieur ñoom fa ñu war a jaar lu tax ñu ragal fa jaar muy ministère de l' intérieur ba tey jii jaaruñu fa ba tey am na ku ko wax démb ne benn baaraam lay Sidiki Kaba di yëkkati rek turu Ousmane Sonko dellu siwaat ci liste électorale yi mais boobu ba tey muy avocat Ousmane Sonko ji ñuy jëli parrainage kenn la ñu ngànk muy lan DGE de Thiendella la ak ki nga xamanteni moy mooy alors que ko ci nek ci droit nga nek je crois que manipulation bi le nit ñi war a bàyyi jubilé yàggul wa ex Pastef fii dañu commencé woon jubilé ci réseaux sociaux mais yaakaar ni jubilé bi ndax te ñi ngi leen di rayé encore fi ci biir TikTok bi dañu sétane vidéo bi delu ci waat. salam sama gay yi chers internautes waa ex Pastef seen jubilé bi du mat une minute Sena limu bind DGE DGE tontu na léegi duñ ko bàyyi mu fanaan manipulation du jall Ousmane Sonko néna amul compétence génné Ousmane Sonko ci liste électorale amul pour dugal ko ci amul pour jox ko quoi que cela soit néna Ousmane Sonko na dem ci ñëk génné won mom liko concerné moy fichier électoral bi mu yor ku tuddu Ousmane Sonko nekku ci kon Ousmane Sonko fexel ñu dougalal la ci fichier électoral bi yow nekko fi yow xamuñu la existé wo tontu du forox ñi ngi leen xaar Ousmane Sonko muy taw muy naaj muy saxaar du bokk ci élection yi kooku nee naa leen ñaan gu ne ci pooso ba noppi noppalu leen ngeen wuti candidat te gëm yàlla seen xaalis yi ngeen di joxe nii da koy perte seen crédit di ngeen jën nekk ci réseaux sociaux yi di manipuler booy amul sens ndax du ngeen bokk ngeen doon jaay réew ak xamari di jël seen essence yore seen almet di taal léegi nag c'est à tour muñ leen rek. réew mi moom du ko jiite xaw ma ban réew yow Gàmbi sax ko jiite bon te ku bëgg document bi nag boo ma bindee ma yónnee la ko mi ngi ci internet bi. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo wax gi gars yi dañoo bëgg rek coow lu bëre ndaxte kii di euh, Thiendella Fall di directeur général direction générale des élections amul sañ-sañ dugal Ousmane Sonko ci liste amul sañ-sañ génne Ousmane Sonko ci liste benn sañ-sañ la am mooy képp koo xamante ne sa tur mi ngi ci liste bi mu jox la fiche de parrainage Ousmane Sonko yaa xayti mu laa ni turam nekkul ci fiche bi kon noppal leen seen bopp ngeen bàyyi kii di Thiendella Fall ak direction générale des élections avocat Ousmane Sonko suñu amee dañu réclamer nañ ko dem réclamer ji kii di ministre de l'intérieur je crois que loolu mooy dëgg bi ngeen bàyyi manipulation

waaw lan ngay lekk foofu samay beña dugub xam nga man damaa bëgg beña dugub ay waay ki lay garder beña dugub rek la lay jox mi ngi nii mun nga ko laaj beña dugub yi mu lay jox nga koy lekk wóolu nga ko confiance bi ma am ci moom lu ma jox ma lekk lu ma jox ma naan xanaa ñoom ay bomb lañu yor ne la doo fi génn doo wut sa yetu kel jàkkaarloog ñoom fetal sax yoruñu ko su dee nag ñeme nga li ngay wax xaar ma wax la naka ngay def ba génn xam nga man li may wax dama koo ñeme man rayantuwuma laqatuwuma li may wax dama koo ñeme da ngay jënd sa ay yetu kel yu dëgër jàkkaarloog ñi baare bunt mi ne doo génn. ni jënd naa ay ngannaay yu bëree bëri bëri ay char de combat ay mété ay lëli ay lëli. Ah! kon yaakaar naa ni ñoo do vidéo bi Ousmane Sonko bi nga xamanteni mom la jeunesse bi gëm mom moy yakaru jeunesse bi mom lañu def sondage ni ko Clé Clédor di waxee jël élection présidentielle 2024 yi Ousmane Sonko jeunesse bi temps yi lañ ko amel Manam, diko ko kokkali di ñaawal ginnaaw bi nga xamanteni mi ngi foofu ca pavillon spécial teud ci hôtel 0 étoile di 150 millions état du Sénégal chaque jour saa yu ko nexé né dafa nek comment saa yu ko nexé mu crise crise en tout cas lu mata baye xel la muy li ñu leen loon tey ci sen scandale du jour sur VIP People TV la chaîne des grands événements s'informer juste c'est vrai d'ici là apportez vous bien et restez scotchés sur nos programmes sur VIP People. Ça continue. Moi, je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, avec un autre numéro de Scandale du jour. mi am ci Lukawaral la nuit vous appartient excellent la nuit vous appartient muy est produit yoo xamante 100% naturel ñu defaree ko à base de bio li ngay jël benn kuddu daal minute balaa ngay séq ak sa soxna dama ne dina guddal sa affaire bi jox la érection bu doy waar ba noppi mën nga def ñaar ba ñetti yoon ci guddi la nuit vous appartient muy produit bo, xamante ni leen na ko tax a jóg dimbale ñi nga da am jafé, jafé, ci wàllu ngóora ndaw bànneex bu rëy la nuit vous appartient jëlal Ben Koudou daal di minute demal cirque ak sa soxna soo xëyee suba souri la nuit vous appartient Ex na Sénégal Fep pour mën a ci Sénégal mën nañ la livrer xam ci diaspora bi numéro yi 77 751 59 59 Banga nga 77 106 85 24 Banga 33 825 24 10 la nuit vous appartient ex si na fii ni ko Pape la nuit vous appartient góor yep, de a dibiteri Uba pour la première fois dibiteri professionnalisé professionnel on ndawal Musoko Degde, de am suñu marinade Bop, am suñu cafka bop, am suñu secret bop. Nanga nga non le McDonald's la McDonald cream, ay secret non la dibiteri Uba amé Ice Cream dibi Uba Safiap Ouba, michui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pintade Ouba, bol Ouba. kaay ma wax la 77 629 0000 fa safiap 77 633 57 57 Fou Michui neexee Moui dibiteri Ouba Fou poulet Nehe, Moui dibiteri Uba. Tenet nag kaay dibiteri Ouba Commandel, nous livrer le fangane. Boule ne tamit nga Tok qualité